Sénégalais yi. <laughs> kon kon mon jeune frère ma ne ko kon mon jeune frère Pape bokk na ci ñi ma ci réseaux sociaux yi parce que avant. dugaluma si si si si nga si si dugal nga <laughs> ci parce que lu tax ma ne dugal nga ma ci réseaux sociaux yi. avant dañ ko jëloon comme euh, une affaire de génération booy ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di saagante di waxante seen affaire des trucs comme ça mais quand on a commencé yenn dérives yi quand j'ai vu en tant que mère... non attends attends da ngay les réseaux sociaux ils ñuy que def live dafa am ñu ko fi njëkk def te T'as dañ doon saaga. ça. Pas ma déglu ma rek boo ma dégloo rek di nga xam fi jëm man en tant que mère, quand j'ai vu la désinformation bi ma daan dégg ci réseaux sociaux yi naka que ñuy manipuler les yi en leur faisant croire qu'il y a une personne moom moo jël six milliards donc six mille milliards yoy, moo nek à l'origine de vos malheurs am na koo xam jël na 94 milliards 94 milliards boobu bu fekk ne indi woon na ko kon doon ngeen am liggéey parce que doon nañ ko investir ci industrie am ko xam ñu ne jël na nangam am ko xam ñu ne jël na nangam gis ko xam mom bi mu génné euh, ci ci ci ci poste yi mu nekkoon en l'occurrence le président Macky Sall je suis pas de la hein? je suis pas de la période je suis Macky Sall nag ku bëgg Macky Sall la parce que dama gis la ma daf ma defal lutax tax ma bëgg mais awma sax carte APR pour votre information mais quand j'ai vu que euh, mom bi mu génnee ci instance de décision yi nga xamné mom ci la nékkone ba mairie bi sax mu démissionné kooku dafa sol dàllam daal di dugg biir Sénégal xol lan moy mbébétu sénégalais C'est faut fu tali manqué mu bind fu école manqué mu bind fu fu fu robinet manqué mu bind loolu moom moo ko jox résultat yoo xam ne PSE ñoom ñu ngi doon parce que lui il a pris le temps de travailler il a pris le temps de fréquenter. le il y a du positif il y a du négatif c'est il y a du positif il y a du négatif. on n'en est pas encore là. mais au moins moom gisoon nañu lu positif pendant ce temps man dama gis koo xam ne daf fi nekk demul fenn mais il était dans la délation di dénigrer il était dans le déni diw moo jël diw moo lii diw moo lii mais diw mi muy wax moo jël lii moo jël lii mais loolu influencé na sama doom bi nga xam ne amul benn niveau influencé na sama doom bi nga xam ne dafay yeewu bëgg 1000 francs mu të on lui dit que yow lan moo tax amuloo 1000 francs c'est parce que y a une personne boo xam ne il a pris le budget du Sénégal daal di koy lekk mook jabootam mais kooku bu fekkee ne amul esprit de discernement bu fekkee ne amul vécu bu fekkee ne kenn dimbaliw ko mais boo ko woowee ci ne kaay ñu xeex day xeex am kenn koo xam ne pour des problèmes personnels dafa porox ndollu ci loolu daal di jaarale daal di jël xale yi dajale leen mais man loolu moom moom ma dugal ci réseaux sociaux yi donc dama ne man ñi ma dugal ci réseaux sociaux yi ci la bokk ci yow nga bokk parce que quand j'entendais des gens ñu nekk ci ay désinformation ñu nekk ci ay manipulation non c'est ça d'ailleurs dama lay expliquer rek xam nga mu jaral xale yi ñu nekk ci réseaux sociaux yi panelu euh, waa APR panelu waa keneen panelu waa Pastef ñu nekk di dóorante ay dàll ñu nekk di waxante lu ñaaw

on a réussi quelque chose loo xam ne kenn mënu ko nier Sénégal. tey non non Manipulation. non non pas manipulation. Non, ah. ah, noonu la xool léegi li positif lañ doon def yëpp. mooy on a fait engager la jeunesse sénégalaise si jafe-jafe réew mi dañoo taal xelu ndaw yi parce que ku si nekk mooy naan lan moo tax ñu am or am gaz am pétrole am zircon la politique industrielle xëyu ndaw yi Macky Sall da ko échoué. on se dit la vérité il a tout fait nag am na loo xam ne dañ nangul mm. mais la priorité bi nga xam ne ni ndaw yi waroon moom la waroon am ku feebar faju xam nga wax doo paree jàng mun a am liggéey. Macky Sall daf ko eh, eh, daf mais on ne moom laa koy wax nag léegi nag ñun information yooyu ñu doon joxe ñi mooy ñi nga xam ne rek ils son victimes di système. parce que système bi wëpp victime. xam nga léegi nag information bi am na koo xam ne da koy jël mu positif si moom am na koo xam ne da jël mu négatif si moom. àdduna àdduna noonu nag léegi nag am na koo xam ne da koy teg mu indi jiixi jaaxal si xelam mu gis si boppam ba mun si réussir. on a fait. waaw yéen it ngeen doon wax ki leen ko doon wax loo maîtriser wu ci dara ndaxte xamul ni aani kase la ci pétrole xamul ci gaz. xamul ci dara parce que su xamoon ci dara tey du taxaw publiquement ne leen Maroc mii amul pétrole amul gaz. tey su xamoon dara du toog fii xamal ni que Corée du Nord Diourbel moo ko ëpp pour wax la. waaw mais ki leen doon wax xam nga pour pour nga pour nga yéen nit ñi xam nga Ousmane Ousmane Sonko man tey du ma sore ci pétrole man xam nga sax bu waxee expert en pétrole dama ko ne un Bachir Dramé lu ñu wax ci pétrole j'appelle Bachir Dramé ma ne ko loo xam ci lii loo xam ci lii lu ñu ma wax ci droit j'appelle maître Amar Thiam ma ne ko loo xam su xamee mu wax ma mu ne ma ah Tange man de lu jëm ci constitution jëm ci parlementaire aayuma ci xaaral ma jox la kii ma jógimante fa mais yéen ki leen doon waxal jiite leen di leen jox information lenn la xam

te ñoom mën nañu dundal réew mi nañ leen yee ñu engagé wu combat bi yàgg na si on a fait plus de vingt ans si xeex bi ñuy xeex man ak ñoom man ak ñoom Mollah Morgun mooy Y'en a marre tey mu yegg si fii ñu soxla woon benn leader nag parce que mm-hmm. li ñu doon xeex yëpp mosu ñu am kenn koo xam ne dafa porté Ousmane daf Ousmane daf si tombé à pic fekk na Assane Diouf daal xel ndaw yi waaw Assane il a il a un su ko combat buñ koy jox tour sax combat bi sax Assane voilà mais il a bien beau travailler pour xelu ndaw yi mm-hmm. mais tey xoola Assane moo njëkk taxaw ne Ousmane Sonko du falu du nekk président man maa njëkk génn def live ma dal ci kawam ba léegi dama koy regretté. damay woo sax na ma yow ah. mais yàlla baax na. waaw mais noonu la c'est-à-dire que combat ngeen nekkoon. pour mosal xelu askan bi. mais je crois que tey jot na aussi ngeen jëlaat seen responsabilité indi la réalité parce que Sénégal lu muy dund ci six mois yi franchement parler même Macky Sall su dee moo gënoon tuune si président yëpp mais ci jamonoy Macky Sall dundu wu tant lii na si Sénégalais. pour ñu xam ñii ñii non temps gis nga Pastef. du ñu lay lu muy indiwaat. du ñu lan lay indiwaat. waaw ci législative bi. du du ñu du ñu fal par principe mais dañuy fal par mer. waaw oh, du ñu am du ñu am majorité man maa la ko wax. même suñu amul ñañ koy jox ci politiciens yi. gis nga est-ce que yebu ñoom ñii. gis nga ñii du ñu falul woon. Hmm. dëkk bi gën a yàqu. mais yàlla baax na bañ leen fi tegee ñu wane seen tuune. Hmm. ñii du ñu yegg du ñu fi defee trois ans sax nañu nañu sant yàlla. d'accord voilà.